Des agences bancaires vandalisées, le siège du comité local de la pêche artisanale incendié, la maison des femmes transformatrices Sakashi et la route principale Bari. Ce sont les stigmates des violentes manifestations des jeunes de Fasbouy. Ils accusent les autorités de n'avoir pas fait le nécessaire pour retrouver à temps une pirogue de 101 migrants originaires de leur localité. Une embarcation retrouvée plus d'un mois après son départ Bilan 38 rescapés, 7 corps sans vie et disparus en mer. Le 15 août, Fasboy se réveille sous le choc. Les habitants apprennent avec effroi qu'une pirogue transportant Plus d'une centaine de jeunes candidats à l'immigration clandestine partis des semaines plus tôt venaient d'échouer au large du Cap Vert. Tim seeni moroom 23 jours un un mois 4 jours ñoom ñëpp ñuy dee benn par benn di jooyoo. sëgg sarak sa mag gaañu ngeen di jooyoo sa ndox jeex sa lekk jeex ba ñoom ñëpp ñuy wàññeeku di wàññeeku ba mu des 38 kon 38 yooyu fa des ñu ñu jàppoon àndatuñu ak seen xel àndatuñu ak seen sago bu ñu leen defalul assistant médical ñoom ñëpp dañuy def kon boog loolu yow la ñu si yaakaar yow président de la République. Dans cette maison, c'est la consternation. Une famille meurtrie par la mort tragique d'un de ses enfants. Le jeune homme fait partie des victimes. Il a laissé derrière lui une femme et un enfant. Tout comme beaucoup de jeunes candidats à l'immigration irrégulière, son rêve était de rejoindre l'Europe où il espérait une réussite express pour transformer la vie de ses proches. bëggoon ma bëggoon ma teral lu ma wax man ma lu may defal yaay baay dinaa la ko defal kon kooku bëggoon na ma teral ma sañoon nag yàlla bàyyi ko ak jabaram ji am ne amuñu sax deux ans amuñu sax ans amuñu amuñu dara. Autre maison, même ambiance de deuil. Ici, comme dans tout le reste du village, on pleure aussi la disparition d'un grand soutien de la famille. ñu ne woon foofu ci boobu ñoo ñu informé gaal gi am na bateau espagnol bu for. teer nañ Cap Vert loolu lañ ci am mais am na ci ne ñu ne ay rescapés yoo xam ni xawoon nañ tenir tuuti ñoom ñoo ñu wax information ni boobu bi yàlla def na li gën sama benn doomu nijaay boo xam mu ngi woon ci gaal gi tudd Ngouda Boy moo woote fii wax ni yàlla def na li gën daal waaw am na ñaari bant ñu ne comme deux ans et demi koo xam peut-être six mois sept mois la. وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تغيير كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تحقير أو زيادة أو نقصان التهويل على ما غير على غير ما أنزلته الذين آمنوا Ce jour-là, tout le village se réunit à la mosquée pour un deuil collectif. Au programme, les séances de récital du Coran et de prières dédiées aux jeunes disparus dans des conditions tragiques. Un moment douloureux, teinté d'amertume, nourri par le sentiment d'être abandonné par l'État du Sénégal. gaal gi dafa réer ba mu amee fukki fan ñu alerté ka wax ka am na ñun jël nañ fii ay moyens dem ba Mauritanie pour navire Mauritanie bi seet gaal gi pour loolu état Sénégal négligé gaal googu ma ni kii jaay dorog sax bu nekkee si dansé da nga koy génn ci dansé boobu sauf que ngir nit nit ki mu doon kon gaal gi gouvernement bu Sénégal waroon na def moyen pour ñu surveiller gaal gi ni mu dame ci boobu mooy waa Espagne ñoom def nañ tout tëmbal seen vedette bi mu dem xool gisul Maroc sénégalais yi ne woon foofu def nañ loolu mais état Sénégal nag yi moom ñëpp informé nañ leen mais benn autorité ba tey jii kenn tegu sa tànk Fass Boye est une zone de pêche, mais selon les pêcheurs locaux, l'activité n'est plus ce qu'elle était il y a 20 ans. Les ressources halieutiques sont devenues rares. Conséquence, les jeunes préfèrent braver les vagues à la recherche d'un Eldorado plutôt que de se tourner les pouces dans un village à l'avenir incertain. géej gi daanaka lépp licence yëpp dañ koo jaay licence de pêche amaana gisatuñu jën woo xamante ni mën nañ koo napp loolu moo waral suñuy doom suñuy mag suñuy rak suñuy jarbaat suñuy nijaay jóge fi nga xamante ni mooy Fass Boye fas yéene dem fi nga xamante ni mooy Espagne pour dem wuti fa liggéey pour daani seen doole Ce drame survient un mois après la présentation d'un plan national de lutte cherchant donc à mettre fin à ces départs de jeunes vers l'Europe de manière irrégulière par l'État du Sénégal. Au cœur de ce programme, l'emploi, l'État du Sénégal a promis de mettre beaucoup plus de mois pour la réinsertion des jeunes et leur formation. Non, lolu nit ñi dégg naa ñu bëri ñu koy wax mais man li ñuy wax ba léegi dugg sama xel bi Le drame de Fass Boye n'est pas le seul, c'est une scène tristement fréquente cette année. Difficile d'établir un bilan avec des chiffres exacts, mais le nombre de morts et de disparus reste très élevé. Depuis le début de l'année 2023, plusieurs jeunes Sénégalais ont péri dans l'Atlantique ou en mer Méditerranéenne en tentant d'aller en Europe.